ni ni ko ku nekk doon defee tey c'est aussi normal que ça mhm. voilà noonu alors mu nekk lu lu am solo ah mhm. donc euh, am na ay jamono aussi ñu bëggoon déformer ay kàddu Ngagne Demba Touré naan ñi bu ñu ñëwee dañuy supprimer religion bi entre autres mais mhm. finalement sénégalais yi ils ont pu euh, jàpp la bonne information supprimer supprimer religion sax ku koy wax mooy yow déjà pas religion samay confrères yi lañ doon wax jamono euh, yooyu ci laa jëm da ngaa katakay di xamoo li xew ci réew mi parce que encore fois il faut pas juger un parti à travers sorties yi ngay dégg à tra euh, muy génn ci gémmiñu ñoo xam ne ils revendiquent leur appartenance au parti mais amuñu fa benn fonction xam nga man tey su ma bëggee juger Pastef ma gis Abbas Fall wax nangam wala El Malick wax ko wala ngañ Demba Touré wax ko wala euh, Ousmane Sonko wax ko wala kii wax ko su ma taxee ne waa Pastef mhm. mais mënuma toog je sais benn Samba Ndiaye mu ne ci Facebook. di bind di saagal ku ko neex di wax lu ko neex. def photo Ousmane Sonko mu bëgg a juger tout un parti à travers ça. Mm-hmm. da ngay tooñ et tu passes com complètement côté de la plaque. Mhm. et loolu daf ñuy dal malheureusement. Euh, da ngay dégg ñu naan xale waa Pastef yi soo leen laajee ñan la duñ na la Ngagne Demba Touré. Mhm. duñ na la soo ko duñ na la diw dañ naan la diw ma nekk sàngam moo bind nangam. Mhm. wala diw mooy def live sàngam saaga nangam. alors que diw moomu xoolal Pastef seen organigramme ba mu jeex. doo ci gis benn poste bu mu occupé. il faut il faut qu'on apprenne. dëgg la que ni les tey c'est si euh, je je l'ai lu hier man ak Pierre encore fii laa toog daaw démb euh, semaine prochaine semaine dernière. di def live di wax ci RTS. Mhm. je vois ci benn site internet ñu bind Walfadjri attaque RTS. ma ne Pierre mais ça c' est quel journalisme est ce que Moustapha Diop mooy Walfadjri. waaw ah. man quand je quand je fais ma chronique man maay wax. li may wax man la engagé engagé wul en rien du tout Walfadjri. Mm-hmm. ces raccourcis là malheureusement la presse daf koo bëgg. Mm-hmm. dañuy gis ay nit di wax seen i wax di saaga ñu ne waa Pastef. Mm-hmm. or soo defoon effort tuuti mu tey mosoo gis mu man bokk dina jafe kenn ne la. man de diw mii bokk Pastef occupé poste sàngam saaga na ma ma dégg wala saaga na sëriñ sàngam ma dégg mhm. wala saaga na tarixa sàngam ma dégg mhm. c'est très difficile mhm. tey yaa ngi wax euh, waxu euh, Ngagne Demba Touré oui l'histoire de Dakhwa la gaa yi jël ko manipuler ko wax ko manipuler ko wax ne ne mais loolu c'est c'est c'est le moindre mal mais Salma da nga bëgg a fàtte que ni daaw bi ñuy def màggalu Touba waa jii jiite gendarmerie bii muy général Moussa Fall mais dem na ci Serigne Mountakha ne ko dafa am ay force yoo xam ne dañoo bëgg a màggal gi. wala mhm. dañ koo fàtte. waaw di fi indi ay ñaawteef. Mhm. waaye gendarmerie pare na pour régler ko. Mhm. te boobu ba mu koy wax ñëpp xam nañ ne fi xam nañ fi mu ko jëmee woon. dëgg la. ah waa Pastef. oui plus grave que ma jambal Diagne yab na waa tuubaa yab gu toll ne taxaw ne moom moo wax sëñ Bass Abdou Khadir Mbacké ne ko bis bu pexe Ousmane ko sottee Touba lay njëkk a naxasal. ma Madiambal Diagne wax na ko fi ñëpp di dégg. financement ba nag. mais mais mais Madiambal jaaj dam ban mu ko dégg dama ne kii nag moo yab waa Touba. Mhm. parce que wax ne bu Ousmane Sonko pexe bu sottee Touba lay njëkk a naxas c'est-à-dire que yow da nga jàpp ne Touba la fa nekk dëgërul dëgër goo xam ne. ku ñëw rek man na ko naxasal comme ça. Mm-hmm. mais c' est ignorer. Mm-hmm. li Cheikh Ahmadou Bamba liggéey ba Touba nekk li mu liggéey. Mm-hmm. c' est ignorer ce que ses fils ont fait ba Touba nekk kon nit nekk li mu nekk. c' est ignorer ce que ses petits fils sont en train de faire pour que Touba kon nit nekk li mu nekk. Touba quel que soit le pouvoir bu fi mënti nekk amoo doole na man loolu laa gëm amoo droit naxasal ko amoo droit amoo doole naxasal Tiwaawan nii feneen ak feneen. mais Madiambal Diagne wax na ko fii. te ba mu koy wax ñëpp xam nañ ne ñi mu ci jublu woon mooy Ousmane Sonko ñëwaat parce que il a dit pexe Ousmane Sonko bu jubee bu sottee. ne moo ko wax sañ Bass Abdou Khadre man sax déjà moo ko wax sëñ Bass Abdou Khadre man j'en doute. mais comme sëñ Bass weddiwu ko damay toog seetaan. Mhm. mais j'en doute mais bu fekkee ne moo ko wax. Mhm. mais dama ne ku yëpp waa Touba gi noonu. Mhm. tey jii nii Ousmane euh, Bassirou Diomaye Faye mooy président. Ousmane Sonko mooy premier lan la wàññi waa Touba. Ah. Hmm? lan la wàññi Touba. te suñu góor ga Serigne moo moo Modou mbay Samb mii ne ci jumaay Massalikul Jinaan ji. daf doon wax lu lu neex. daf ne les mourides n'ont pas de problème le matin ils boivent leur kafe Touba et chantent leur xasaayit le soir ils boivent leur café Touba et chantent leur xasaayit mm. si tu aimes le marabout il t'aime ah. si le marabout t'aime il t'aime mm. c'est aussi simple que ça yomb na de <laughs> jafewul jafewul donc c'est c'est leur manque de respect que que de penser que ni bu fi beneen pouvoir toogee man na ci ñoom dara wala déet la preuve dem bi fa Bassirou Diomaye Faye euh, demee regarde la réaction des mourides mm-hmm. ñëpp kontaan ñëpp kontaan loolu mooy Sénégal mm-hmm. bi mu demee Tivaouane les Sénégalais ñëpp kontaan te loolu da ngay da ngay gis ne sax Sénégalais dañu dañu dañu dama dama ne heureusement ba Diomaye yeexalu ko mm-hmm. parce que bu ko yeexaloon dañu gis ne Sénégal dañu xiifoon gis cette image la oui. et Dieu réalisé hier il faut mm-hmm. remercier la bon Dieu pour ça mm -hmm. et tey jii nii ils apportent une réponse moom Bassirou Diomaye Faye man loolu laa gëm à ceux qui disaient que ni dañoo contre ñii dañoo kii nii gis nga président Sénégal ak ku mënti nekk soo comprendre tuuti réew mi ak ni ko ni ko ni mu bindoo. doo fi nekk di contre benn communauté. parce que boo contre sonal sa bopp sonal leen. Abdou juuf moo bind ma liir que ni sengoor moo ko wax bi mu koy jox nguuru Sénégal gi ne ko boo maa ngi dem nga war a nekk président Sénégal mais bokk na ci li ma lay dénk. Mhm. bul di tuuba bul di gëj Tivaouane même quand tu n'es pas d'accord avec eux li nga leen ameel jox leen ko ba mu mat. Senghor moo wax loolu parce que xam nga lu tax Senghor wax ko. c'est pas parce que euh, këru diine yi dañoo neex Senghor mais Senghor a compris que ni ñooñu dañuy participer à ce qu'on appelle l'équilibre de la que nit ñoo te naa ñëwaat léegi wax ji ci Ousmane Sonko waxoon en 2018. c'était au mois d'octobre 2018. soo comprendre un peu di nga xam ne ñii dañuy participer ci équilibre réew mi. Mhm. parce que tey ñaanu ma ko yàlla. mais imaginer loolu ñu am ci Sénégal benn président boo xam ne da ngay tongoo ak Serigne Mountakha Bachir. wala ngay tongoo ak euh, Serigne Baye Sy Mansour mais lan doo mën a def dara ci réew mi. day yéeme de. day yéeme. loolu nag heureusement que Bassirou Diomaye l'a compris. Mhm. heureusement que ñu mu ànd je dis même pas qu'ils compris parce que. li suñu wane leneen. Eh, eh, très bien Salma mosuñu mhm. wane leneen. Mhm. beneen bi mooy. tey Sénégal ñun ñëpp dañoo war a sant yàlla. seulement tey <laughs> bu la neexoon tey jii léegi nga toggam neex nga ne ah man de samedi j'ai envie d'aller je ne sais pas seeti Wally Seck. waaw Vogue. Mhm. seeti Wally Seck. dem Vogue. waaw dum fan fan la tudd. <laughs> <laughs> baro bi ngi ree wala wala nga ne j'ai envie man je sais pas man génération Youssou Ndour laa ne j'ai envie dem d'aller voir Youssou Ndour. mais est xam nga ne ay weer ci ginnaaw ñemewoo ko. xalaatuma ko woon ne nii nag mi ngi sama xel bi de. ay weer ci ginnaaw <laughs> bu bu Wally Seck doon tëgg fii ci buntu Walfadjri doo dem. déedéet parce que xam nga fi réew mi tolloon. Mhm. mais seetlu nga ne ba Macky Sall demee ne bokkatuma seen réew ba léegi. ñun ñu ngi ci jàmm on est heureux. waaw parfois dama naan Macky jaroon sax ñu fay ko mu dem comme disait Mame Birame parce que ñu ngi ci jàmm. Mm-hmm. foo bëgg ngay dem foo bëgg a circuler ngay circuler boo bëgg a génn ngay génn. Mm-hmm. Euh, boo bëggee dem jumaa dem jumaa boo bëggee a waxal waxal. Mm-hmm. sa téléphone bu la nit woowee da wax ba géex. te y a quelques ci ginnaaw su la nit woowee da nga naan ko rappeler ma sur WhatsApp. wala noo bàyyi la ñu gisee pourquoi parce que réew mi la Macky installé woon ci benn tension boo xam ne kenn xamul lu mu nekk. Mhm. tey ji Macky Sall ba mu nee bokkatuma seen réew jël naa sama avion dem na mhm. sénégal yi ne ci jàmm ak salaam seetlu woo beneen affaire. muy lan Sénégal déggatoo fi kenn ku fi wax terroriste. wallaay dëgg la terroriste amatu fi. Mhm. Euh, cocktail molotov amatu fi. Euh, rebelle amatu fi. force occulte amatu fi les sénégalais so en paix mm-hmm. les ils boivent leur café Touba ils mm-hmm. boivent leur thé ñi ngi lekk seen dibi ñu ngi ci jàmm ak salaam mm-hmm. leen rek la ñuy ñaan Bassirou Diomaye Faye liggéey réew mi ñu jëm ci kanam mais loolu jar na sant yàlla dafa neex dafa neex moo tax ma ne réew mi tension yi fi am yépp waa Bennoo ak seen nguur gi ñooñu ko tegoon ñoo créé ay tension entre naan sëriñ si ñii dañ leen a bañ ñii dañ leen a contre dem ne journalistes yi ñii fii lañ far ñee lañ far imaam yi ngay jox ñi ay suukaru ñeneen ñeneen réew mi jaxasoo ñëpp kii. Mhm. Bassirou Diomaye Faye il a compris que réew moom la hérité. Mhm. et yoon wi mu teg. yàlla na ko ci yàlla dimbale mu jëm kanam parce que man leer na ma ne su jëmee kanam Sénégal baax Sénégal ma di ñëw réveil sama yaay elle se réveillait à 5 heures du matin 5 heures ma parce que elle se disait à <laughs> tout <laughs> moment que demee mën naa bañ a ñëwaat dina ma ñaanal def ma nii xam nga ma dem mais là j'ai vu que day nelaw ba yandoor amatul benn souci. mais mais mais nit ñi imaginer wuñ sax Macky Sall lim ñu tegoon. Hmm. dinaa ci ñëw léegi parce que ak seen waxi passeport yooyu. waaw gis nga yaa ngi wax euh, euh, sa yaay man da yàlla daf ma dimbalee j'ai des parents yoo xam ne ce que je fais dans mon hmm. c'est pas leur problème. ko déglu wuñ hmm. mais toll na ay weer man du ma toog semaine te jotuma appelu sama yaay wala sama papa. qui me disent moytul. moytu leen Macky Sall mii ndànk ba ndànk affaire ba ba dafa demoon ba man damay fàtt sama bopp mais quand je dois dire quelque chose je pense déjà à eux gis nga jour bi ma demee commissariat central ñu entendre ma fu ma génn mhm. bi ma génnee woo woo sama sama yaay quand compris moom ni mu yendoo mhm. dama ne liggéey bi ñu def jaratu ko le premier dis la première décision bi ma bëggoon a jël mhm. mooy bàyyi parce que dama ne liggéey bi jaratu ko ce qu'on est li ñuy teg suñu yaay yi ak suñu papa yi lii jaru ko après j'ai compris que ni en fait du suñu liggéey moo leen ko teg. Mm. mais Macky Sall ak nguuram ñu leen ko teg. xañ ñu lépp. moo leen ko mm-hmm. moo tax ba ñu demee ba léegi les sénégalais même waa Benno ils sont heureux. amuñu benn problème à part peut-être à part peut-être yi ñu ci doon am te amatuñ ko. Mm-hmm. ils sont bien parce que kenn kenn soo leen ci dara. Mm-hmm. ay Moustapha Diakhaté ay keneen ak keneen ñi ngi ci réseaux sociaux yi di wax lu leen neex. kenn lijjantiwu leen. Mhm. non loolu jàmm la ci réew mi. wallaay fi mu ne nii moom da ngay xëy am envie sañse. xam nga liggéey mais mais bien sûr bien sûr ñoom Pierre ñi am dem dox lu jubul ñu ngi koy doxi kenn lijjantiwu leen. <laughs> en ngi noonu yéeme na lool <laughs> mais ci visite boobu Moustapha on n'a pas vu Ousmane Sonko le